ah asalaamaaleykum àdduna bi yëpp Oustaz Ahmed Diop Fall mbëkk mu leen di nuyu borom yàlla kese barke bi yombal xiyaamal akbar kontaan naa bu baax a baax continuer leen di abonné rek ci seen YouTube bi ak Instagram TikTok fépp un million bi rek laa bëgg barke bi yombal xiyaamal ak kontaan naa lool wuy ma. 8 mars bi démb la woon nag maa ngi lu nekkoon ci ay tournage ñi ngi ñaanal suñu yaay booy ay jàmbaar ngeen yàlla na leen yàlla lafal cat barke bi mal xiyaamal akbar kenn du yéen 4 heures la ñuy yeewu di waajal di ñu togg lu dundee di ko jox xale yi di dem marché yéenu seen siwaya seen njaay kenn du yéen yéen yaay booy yàlla na leen yàlla defal jàmm soxna yi am leen jàmm rek yéen yàlla da leen a teral ba pare moo tax góorgóorlu leen waaye tamit munu leen a dem bàyyi ñu ñun tamit mënu leen a dem bàyyi lu barki bi man xiyaamal ak ba noonu jàppante àdduna amul solo waaw ba ñu déglu kenn Sénégal yàlla na fa yàlla def jàmm waaye nag boo gisee loolu tey damaa kontaan ndax dimb damaa gis artiste bi Wally Seck faramareen bu mag bi woykat bi dem ca sunu yaay booy sunu maam booy muy ajaa xaar mbay ma jàgg barki bi yombal xiyaamal ak bar jooy yi woon na lool triste yi bëri woon na lool waaye waali ah, def nga lu rëy de ndax sa baay moo waxoon ni bala ngaa xam li sa baay daan daj nga màgg xàmmee waaye tamit waali kon léegi dangaa war a woy ni bala ngaa xam li sa baay gën a bëgg nga màgg xool sa kóllëre baay ñi sa baay daan ànd ak ñoom démb ngay matale kóllëre ga sa baay dina kontaan barke bi mal ma amalak ba sa papa fa mu nekk xool ba sedd na guy ba mel ni wanagu mbott Wally Seck kóllëre gi sa baay mi defoon nga xam ni moo ko Adja Xar Mbay ma jàgg démb la woon tey soog a ñëw yaa ngi koy matale. dëgg du romb na baax góorgóorlu rek ala accu ca kaw ca kanam barke bi yomal xaam la kabar. italien bi naa nga goota goota mooy yow demal rek barke bi yomal xaam la kabar wuy ma luy xool bët bu aay yàlla bu mu la gis luy xool kuy dëpp yàlla bu mu la gis képp koo xam si da ngay xool ku avancé yàlla na ne jàkk wàlli sekk faramarin bu mag jërëjëf yàlla na leen yàlla defal jàmm. musiciens yi juboo leen àdduna amul solo artistes yi juboo leen àdduna amul solo yàlla na Sénégal def ci réew mi jàmm waa bay nukum ci yéen nuxuruji ko guppo guppo faadaa faada gupp loo amen gupp lëfër lëfër waali barke bi yow mal xiyaamal ba sa baay ba xol ba sedd na guy fa mu tëdd yàlla na ko yàlla defal dolli yërmandeem yàlla woyefal suuf ci kawam sunu bàyyi coon balaago sekk jërëjëf kontaan naa ci yéen bu baax a baax wasalaam